xam nga des fois nag euh, Assane am na luy xew ci société bi loo xam ne dama naan góor ñi ñàkk nañu fayda mais jigéen ñi kenn rawu leen góor gi ngay génnal nga jox sa bopp nga ne ko lu tax nga jox ko sa bopp mu ne la dama ne boo ma bëggee wan ma ko foofu rek lañ war a mën a mën a wane mbëggeel mu leer la ne góor gi di la laaj sa bopp bëggula la loolu kay na góor gooy jox sa bopp mu lay takk xalaatu ko bépp góor bu la bëgg ak loo ko man di jaral ci àddina ak lu mu sonn sonn ci yow bis boo ko joxee sa bopp ñàkk ko bu fekkee foofu rekk nga ko war a mën a wan wane ak mbëggeel sa préfère mu yem fa parce kooku gis na Assane dafa am ñaar ñoo xam ne dañuy dikkal jigéen te force yàlla dimbale la nga soog leen a man a ràññee mooy kilo bëgg ak kilo la xemmeem ñooy bokk ni ñuy ñëwee lam jaral kee moom lay jaral kee muy kilo bëgg ak kilo la xemmeem coono bi kee di daj pour jot ci yow moom la kee di daj pour daj ci yow pour jot ci yow dégg nag il faut nga xàmmee mais ki bëgg. bëgg laa takk tey boo ñëwoon bëgg koo jox sa bopp sax day bañ xalaatuma mu di la ko proposé far bëggu la parce que daf laa xemmeem te nit dafa bañ kumpa moo tax jigéen ñi xaw a sond ci fànd googu parce que sonkoo dafa ñëw di la déclarer amour amour la xaw ma l'amour waaw léegi bi mu ñëwee déclaré la amour ne la man ka dama laa bëgg léegi lislaam nee na génn leen bu fekkee gis nga ne yow bëgg nga ko consulteel sa xol attention yitam foofa conseil bi ma la ciy jox yow soxna si góor dafa ñëw ne daf laa bëgg bu fekkee gis nga ne kii war ngaa mën a nekk ak moom war ngaa mën a bëgganteeg moom tontu ko tontu bu nite mais boo ko tontu lu koy daw dawlo ñaati nitay ñoo sëñ Mamour dama bëgg nga ñaanal ma borom kër moom daal ku dem ku dem man ku ko wax dama naan dem lu leen yóbbu loo leen wax loo leen def parce que wolof danaan bakkan jàmm la bëgg mais bu Assane la dama bëgg la nga ne ko xamoo sa bopp mais bu amee fulla dootoo ko gis du dëgg loolu kenn du ko tontu nit xamoo sa bopp duma sa maas cuuj day xam lekkam mais loolu koo ko wax te tuuti déngite des ci xolam dootoo ko gisati ci àddina ak lum la bëgg-bëgg bu ko defee nga naan ñoom mii rek la def dañu làmbatu bu nooyee ñu jàll bu dëgëree ñu taxaw mais lii nga kii lii kii nga ko tontu muy kula bëgg muy ku la xemeem muy ku la fonk muy ku la bañ koo ko man di waxta mu am dignité dootoo ko teg ban bu ko defee góor ñi ñëw di dem rek nga naa rabama jàpp tous jàpp la yaa jàpp sa bopp am na ñoo xam ne ñooy seen faru rab de ñooy seen rabu bopp kenn jàpp leen waaw ña ca des nag jiital seeneen man de góor gi laa bëgg xam nga am na jamono joo xam ne moodu moodu moo xewoon waaw léegi nag gars yi faru dóorkat la ñu wër waaw ku kuy am xaalis rek te mu wóor la ne liggéeyu ko kooku la ñu wër léegi waaw léegi fonctionnaire fonctionnaire ak yooyu yépp ñoratu leen mooy la Serigne Touba doon wax ca téere ba rek nee na jamono ji ñëw mooy yiis mooy yées ja ko jiitu woon jamono jooja sax daan nañ xool ku jëm fenn parce que moodu moodu bi am na fu mu jëm ma ngay liggéey ngir sonn ngir teral njabootam waaye léegi ñun ku jëmul fenn lañ bëgg waaw saa yi daal oto bu mu yor tey bu ëllëgee mu yor beneen. appartement bu mu dëkk tey bu subaa mu dëkk ca beneen mi ngi sangu mi ngi solu mi ngi yor mi ngi mi ngi mi mi ngi sol lu rafet mi ngi yor xaalis te nga xam ne liggéeyul dara nga ne kii daal mooy waaj waaw. loolu la ñuy tuddee xaw ma business xaw ma lan waaw ñu définir ko ci anam rek business moom saa soo ci duggee business ngay def bu réussir business bu essayé business business moo ciy topp kenn du ci xool góor xam nga lislaam dane woon góor gi buy xool jigéen na xool ñeent waxtaane woon naa ko mais jigéen nit ñaar lañ koy xolloo ci góor na am diine na am jom assan na góor gi am diine na góor gi am jom ñaar yi képp lañ la xolloo ci góor am naag ñàkk naag naqari na deret neex na deret dina am am na wërsëg fii la bokk fee la bokk loolu sa yoon daf cee nekkul lislaam nee na xoolal ñaar mooy na am diine na am jom na am jom bokkut ak na am xaalis de na leer man ngaa gis ku ñàkk jom suñu borom jox koy milliard nga gis ku am jom suñu borom du ko jox dara loolu mooy dëgg gis nañ ko motax manena am jom jom ji rek mo ci am solo nango liggey lam man mu nangu ci sonn koka nak am ga ñak ga ci loxo yalla la nek lol na leer mais dal man dal hmm, munuma ñak ki fauma am ko ki parce que sama njabot gi fauma am ak njabot li ak li nangam ak nangam di tek say calcul rek di tek yaangi programme ngi programme sama njaboot gii ma jot a am fee faaw ma amaat ku ma mënal dara kan moo la mënal dara ku dul yàlla garab bula la sutul du la may ker garab gi ku ko fa jëmbat asan du yow du yow yaa ko suuxat ba garab gi tol nii mu toll ba xëy nga toog ci taatu garab gi mu lay keral yow bu ñëpp defee ni yow garab dootul taxaw dangay dem fekk fu dara newul sayyidatuna Xadija bi muy sàkku yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam mu takku ko def ko muy soxnaam booba Xadija jot na àddina ak li ci biir commerçante bu mag la woon ca Makka booba yónnente bi yorul dara ci saahir koom-koom xaalis yoru ci woon dara la preuve booba employé Xadija la woon doon ko liggéeyal kon kay xam nga ne yorul dara te pourtant Xadija da ko takk dem ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom dénk ko ay léegi bu Xadija doon xool ni kii de bëgg naa ko waaye yorul xaalis ndax dana am ko ko gën mukk ci àdduna mooy loolu mooy référence bi yow soxna si boo gisee ki nga bëgg demal mu takk la yor naag yorul dina yoreeg du yori ci loxo yàlla la nekk pour pourtant yaa ngi fekk ko yor addina ak li ci biir mu tàkk la xëy ñàkk. ñu naan da koo jiga deeg da ngaa aaye gaaf ak nangam ak nangam ñi takk na la xëy ñu d'accord ca place ba mu waroon ba mu doon liggéey te pourtant même bu la takkutoon it ñu dàq ko bu ko defee ñu tàmbul di la baatal du gis ngeen ko ci série boobu sekk secret de famille waaw te pourtant lépp nag ci dogalu bi yàlla kese lay baasewu mais nag yàlla am na fulla ju toll ne loo gëm gëm ni nii la war a doxee yàlla dala cee fekk si. moo tax ma ne am na yoo xam ne du tous ay xeetu aadala yoo xam ne ñoo ko keree teg ko ci suñ kanam rek mais existé wul moo tax ma ne boo gisee góor mu bëgg la nga bëgg ko bool xool situation waaw bol xool situation lu alquran wax wa tilka ayyaamun daawilahaa bayna naas te yow ëllëg sa morom ka tilkal ayyaamu nu daawiluha bayna naas nee na tey yow mii la nee ëllëg sa morom jeex na kon looy xool ci ko am ak ko ñàkk te am ak ñàkk nekk ci loxo yàlla wa anna al fadla bi yadillah inna laa huwa razaqu dul quwwatil matin du dëgg moo tax kon loolu mbokk yi lu mat a bàyyi xel la boo gisee ne daal jikko ji baax na nga gis ne kii am na jom am na diine demal nga sëyal ko te bañ a xool beneen intérêt moo tax boo gisee problème yi am daanaka boo dee xool cinquante cinquante la muy daanaka góor gi it xamatul jigéen gi ko bëgg ak ki koy mbaraan parce que ki la bëgg ñëw coono bi mu koy jaral ngir mu jot ci yow ki lay mbaraan nit coono boobu la koy jaral pour mu jot ci yow nga xam ne kon li dal jigéen ñi moo dal góor ñi itam xam ne kii bëgg na la carrément mooy li gën a jafe ci jamono ji kon ñenn ñi far dooni dof sax ca la ñuy wut waaw gis nga Assane boroom xam-xam bi da doon wax ni noon bu yeewu moo gën bëgg bu dof waaw noon bu yeewu moo gën xarit bu dof ñu ne ko lu tax mu ne am noon day lu mu la bañ-bañ te am xel yeew day nekk ci li mu nekk nga nekk ci li nga nekk yoonam nekkul ci yow mu ne bàyyi bu fekkee xarit bu dof nag mën na laa jubloo jariñ ba far lor la moo tax lu mën dee am àndal ak sa xel àndal ak sa xel loo mën di bëgg ci àddina it àndal ak sa xel waaw parce que ak ndof moom lu mu jiitu réccoo cay mujj amul sax werante rawatina boo ko seqeeg nit nag moo tax ma ne jamono ji daanaka kenn xàmmeetul ki ko bëgg ak ko bëggul waaw gis fii góor ñoo xam ne wóolootuñ benn jigéen parce que dañ leen a yàgg nax di lekk seen xaalis nga gis jigéen goo xam ne wóolootul benn góor parce que dañ leen a yàgg nax di jaar ci seen kaw waa léegi bu ñu àggee jamono jooju nag naka pexe. moo tax jamono bu yàqoo itam ñun ñoo ko yàq parce que suñuy jëkko la léegi nag woy jur yi ñëwaat nag doonaat beneen gàlluwaay bu gàll ci suñu kaw di ñu teg pérection boo xam ne lislaam teguñu ko te loolu bari na fitna yoo xam ne ñi ngi am ci kër yi xam nga dafa am mbokk mu ma waxoon ne ma iñaante iñaanante bi ci kër yi ne bu njëkk ci doom yi bàyyi la daan am waaye dem na sax ba ci ñu bokk ndey ak bàyyi di iñaanante ma ne ko waaw ma ne ko ci way jur yi la ma ne ko da ngay gis jur wu nekk ci kër am ñaari doomam doom ji doon ku baax ku ragal yàlla di jaamu yàlla waaye suñu borom dénku koy xéewal moom kenn du ko déglu kenn du ko xaar añ bu yéexee ñu tibbal ko ca super sànnil ko ci ñaari jaxatoo kum nawe bu ñëwee añe ko bu ñuy def réunion kenn du xaar xalaatam bu yeexee ñu tàmbali nga am jeneen doom joo xam ne moo kii ngay béccingal ñoo bokk ndey ak baay waaye suñu borom dénk na ko ay xéewal bu añ bi naajee moo ko naajal parce que moom la ñuy xaar tànk ñëwul kenn du yakkaañ bi lu mu wax moom la bu bi ay yépp tànk ñëwul kenn du tàmbali bu kii di wax ak yow bu kee di wax sax nga ne déglul na kee wax booy sant kee yor xaalis bi ngay sant pourtant kii ku baax la ku ragal yàlla la ngeen jàpp ne liggéeyum nday mooy lan da ngeen a jàpp ne liggéeyum nday mooy yor alal judul jeex di ko pasar pasare di teg diil di sàcc di fel di jëw di njaalo dajale alal ju lu jeex bu ñu waxee nga ni liggéeyam nday la xanaa kon ñi yor seen carte taxaw de jaay seen bopp di ca am lu dul jeex seen nday ko liggéey xanaa loolu liggéeyam nday la kon waa ki sàcc ay milliards ñeme naa taxaw naa sama ndayee ko liggéey sa nday sàcc la la liggéeyal kiy wër di teg diil di jël ay bakkan di leen ngir am alal kooku ñeme naa taxaw ne sama ndayee ko liggéey nañ waxante dëgg liggéeyum nday mooy suñu borom def ci yow jikko ju baax ju sell joo xam ne fu ñu tuddee sa tur fitam du rëcc waaye sa doom ji ñëw di la jox ju dul jeex jaaykatu dorog la wala jaaykatu yàmbaa la wala ab féticheur la kenn xamut lu doon saa soo déggee turam saw fit ne rës mais ñaar ñii kan moo ci gën a am liggéeyum nday nga gis ku jéppi doomam ci ñàkk am banaan ko bu ma yëgoon ba nga juddoo ca hôpital ba laa lay xoñ nga dee dee bi nga ko ko waxee rek yow rey nga ko moom egsi seetul dee na moo tax waajur yi nañu bàyyi gënale bi ci biir kër yi boo amee sa ñaari doom yaareen jur yamale leen bol xool la am bol xool lañu amul bol xool ki ñakk bol xool ki am yow daal xoolal dëgg léegi yow baay ji nekk ci kër gi di jaay ne da am diine kii nga xam ne amul xaalis bu xëyee mooy ñëw nuy si la jox la ñaari loxoom sukk nga yolox ko sa benn loxo doo ko sax faale wala doo ko fay-fay bu àgg waaye ka am xaalis nag yow baa ji yaay dem fëgg ko dem nuy ji ko imagine lii ci wàllu gënale ci kër yi moo tax bëri na ñuy dugg ci nooxor léegi kee bu xelam gàttee danaan man xaaral ma def ma fexe ba am mii sama mbokk mii amee fi ko teg nu ma mën a def ba am man itam naa ko def ba am ndax ñu jër jox ma cër bi ñu cër bi ñu ko jox boo amee boo bëggee soxna du du jafe kër gu nu këru jinne danañ la fa yebal yow amal rek demal sa kër bàjjen diw kër sa nijaay diw demal kër nangam demal kër nangam soxna diwa nga fa